Abu Taalib bi mu ñëw Seydina Abu Bakr radiyallaahu anhu moom it ca ngor boobu nag ko dox si woon ak ñenn ci ay bàjjenam ñu ne bi ak si rek bàyyi bàyyi Xadijatu Xuwaylid daal di bañ ne mukk du ma nangu ni Xadijatu woote ko ci nekk ne ko bàyyi bul fàtte ne yow yaa waxoon démb ne may nga woo ko te yaa ko bind ci këyit te signé ko te buñ gisee sa mbind mi dañuy wax ne daf nga rek te moom ñu wax ko daf rek la bañ mu daal ne waaw may naa kon ñu may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaree ko ñaar fukki waaye mu ne kooku ne ñàkkam benn mën na caa jàpp Xadijatu nag oo oh, ay jaamam yëpp solo leen bu yëgal rafet ci boppi màkk yi prix yi gën a cher ci prix bësën ceeb la te nënd la wax waaye yeneen yi caa waaye saxoo ko nag dàppetoo ko nag loolu wax dëgg yàlla lu sib la ko defee nag Xadijatu moomu am na ko ci waxam lu ko ci léppam mooy ki xam ne moo ko njëkk a jàppal jàppale am naa moom ay njaboot am naa moom. Zeynabu am naa ak moom ak moom Umu Kulsum am naa ak moom Fatimatu bu jigéen am naa ak moom Qaasim am naa ak moom Abdullahi juróom benn doom yoo xam ne na ko ak moom mutlaqan juróom-ñaari moom juróom-ñaari doom la am waaye Ibrahim xam ne moom mooy caatam mu góor moom Maariyatu Qibtiyya nga xam ne Muqawqis Muqawqis moo ko ko mayoon buuri Misra kooku moom maa yetu moom moo ko jur moom lay bàyyi di wax naan kooku moom ci ñun la bokk. da ko defee nag Aminatu dimbali yontu sallallahu alayhi wa sallam lool ci la alalam yëpp jox ko di ko dooleel yontu sallallahu alayhi wa sallam nag toog na bés rek boo ko defee mu toog bés rek dem ci ci xaaru soow. den den ci jëfandikoo man ca yooni minam ab montagne la ab montagne la boo xam ne am na xuntu ngay ca kaw mu dem eeg ca kaw toog di jaamu boromam foofu la daan lekk di wetal yàlla daf daan wax Xadijatu ne ko man soxla ma dara ci àll àddina yi demee préparé rek lu ma lu ma sa dee sama biir lu ma lekk rek as tuut lekk ak lu ma naan dem jaami yàlla dem jaamu ci yàlla soxla ma ci àll àddina yi dara xadijatu moom jël na àllam yëpp ëmb koo ñëw tegal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam waa Quraysh ña ngi koy tooñ ña koy ñaawal naan kii moo ñàkk xel moom moo dem gaaral yonentu boppam moo dem labatal ko boppam mu jële jël àllam yëpp jox ko waaye ñàkkul fayda de moo tax jigéen du baax bu gisee yooyu ñëw ne ko iqra wa ñëw di wàcce ci moom alquran ne ko jàngal yontu sallallahu alayhi wa sallam ne ko man doonuma jàng fekkuma jàng du jàng daf daan ñëw ci xarijatu bu ñëwee rek bu gisee malaaka mi ñëw rek ne ko man am na gis tey loo xam ne daal daal koy misaalal mu ne ko ndax dana ñëw ci kër gi mu ne ko waaw mu ne ko bu ñëwee nga wax ma ko ba mu ñëwee rek wax ko mu dindi mu soor gi mu muur gu mu laaj mu muuroo rek mu daw mu ne ko lii du seytaane bu nekkoon seytaane fee toog ñun waaye gannaaw mu ngi daw karawi jigéen yi malaaka la bu la waxatee jàngal boo ko ne ko lu may jàng rek bu ko wax ne ko du ma jàng bu ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril wàcc rek ne ko ne ko jàngal rek mu ne ko lu may jàng mu ne ko bisimilah mu tëdd leen xalam alquran daa di wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jiitu loolu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkkee ñëw ci xadijatu keroog ñëw ba mu ci xadijatu lox na ndox boo xam ne ànd ak tiitaange ànd ak njàqare naan ko zammiluuni dasiluuni naan ko naan ko sang ma sang ma sang ma boo ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadijatu ne ko yow mu ne ko man daal damaa foog ne daal yow yow yàlla dana toroxal ndax yow da nga jokk mbokk te da indi ci dëkk lu fa amutoon te da nga dimbale aji doole te yow dool doo torox ku mel ni yow du torox bàyyi mu ne jikko yooyu ba tey kañ ko jikkoo yàlla dana toroxal mu ne ko waaye xaaral ma yóbbu la ci war a xamte mi naw fan gisaane daana dem ci moom di waxtaan ak moom <coughs> xadisatu mu ngi bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy wax waxi jigéen la dafa bañ mu ne kii daal li may wax yëpp ay waxi jigéen la rek mu ne ko xaaral mu yóbbu ko ci waraqatu waraqatu nag yonent bi daal ñu koy mel leen gis mu ne ko loo gis mu may ko ko mu ne ko yow day la wàccoon ci naa musu ba moo nar a wàcc yow waaye xelante woon ak keroog keroog bu ñu lay génnee fekk ma fi kon mu dimbali la yonte sallallahu alayhi wa sallam daal di la ko amu xarajiyahum mu ne ko wallaahi dañ la génnee mu ne ko ndax dañ ma génnee mu ne ko dañ la génnee ndax yow ni nga dikkee kenn mosu koo dikkee ne du xëyaane nañ ko non non nañ ko génnee nañ ko rek la mu dikkal yi tamit Mawlana Cheikh Ibrahim ca lew nañu fa dem sànc Madina de dem bay tey rek sallallahu alayhi di oote gaa di ko gëm di dugg diine mu ngi oote ñu koy gëm muy oote ñuy gëm di dugg ci lislaam waaye ñi xam ne ñooy dugg ci lislaam moom lu nekk lu nekk xeeti métti yëpp daj nañ ko ñu ngi leen koy teg di leen teg Xadijatu moo njëkk a moo njëkk a gëm ñii ne Abubakar Siddiq moo njëkk a gëm ñii ne déedéet Sidna Ali moo a gëm waaye mu ne wax ji ci jigéen ñi Abubakar moo njëkk ci góor ñi du Xadija moo njëkk a julli ñëpp moo njëkk a julli ñëpp mutlaqan moo njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Xadija gannaaw ba Sidna Abubakar moo ci topp Sidna Abubakar mi duggee ci lislaam mooy dem na saam di tereeti doxam ñaari weer diggante Makka daje fa ak am mag moom mu ne ko yow de gis naa ci yow ay mandarga yoo xam ne benn rek a ci des mu ne ko mandarga yi lan mu ne ko lañ jàngoon ci téere yu njëkk yi ñu xam ne mooy waa ji njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu jëm jamono ci tëj yonent bi la ñu waxoon ci moom yëpp ci yow laa ko gis ci mandarga waaye benn ci des mooy dana am léget ci biiram bakarin daal yi te ci ci yéram rek mu gis léegi ba ko yow la maa lay bëggal ne la yow la yow la ñu waxoon mag mu góor ndaw waaye ñoo xam ne mag la ak koo xam ne ndaw la mu ne ko mag ma yow la la nag xuusaa koon yi géej dee la waaye way fecci way nanti xam-xam la mooy sidna Ali nag tey de sidna Abubakar nag waaye mag ma daal koy ebal daal koy sadd ay béyti ne ko man boo demee nga nuyu ma yonent too ko man ci diineem laa bokk mu dem ba mu ñëwee màkk rek waxyu bi yàlla i yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sina Abu Bakar mi ngi ñëw mu dab ko Abu Bakar moom it ma ngay dab yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajee ñoom ñaar ca yoon wa mu ne ko Aboubacarin maa ngi lay oo ci diine yàlla ma yónni ngir mànkante ni li def yëpp jëlee leen dàqal leen safara yóbbu leen ci aljana ngeen di wéetal yàlla mais te loolu nag dara mu leen ko may yàlla ne yi ngeen nekkee nii ak yi nekk yëpp ay jul yi ngeen jaamu yëpp ay caaxaan la mu daal ne ko yàlla la yónni ma ne ko waaw ma ko luy sa tegtal mu ne ko mag ma nga daje ca mag bëgg na ma daje yi ma daje mag ma nga daje woon ca Cham mu ne ko man kay mag yi ma daje ca Cham bëri ne ko waaye ma lay wax mag ma nga la ko gëm yow des laa ci mag ci géej dee way fecc xam-xam yu tëla mu ne ko mag moom laa mu ne ko ku la wax lii te loolu xewee ñëw ne bàyyam man kat tey sama doomi bàyyi tax ji dafa maa wax lu yéeme mu ne ko lu la wax mu ne ko def ne ma yàllaa ko yónni mu ne ko moom daal li ma lay xamal mooy bul mus a bul mus a uute ak moom lépp lu mu la mus a wax na nga ko def lu mu la digal def lu mu la tere bàyyi mu ne ko kon ma gëm li muy wax mu ne ko demal gëmal kay laa wax si naa li ñëw ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si naa Ousmane moom moom si naa Bakar moo ko oo Seydina Abubakar moom dafa nekkoon taajir boo xam ne ci Màkka daan yaxantu ñoom ñëpp ñu daan ñëw di ko ñoom Abu ñoom ñëpp dañ daan di ko toogaandu ak ñoom ak Seydina Ousmane mu oo ci diine ñu dugg mu yóbbu leen ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuub ñoom ñëpp Seydina Omar moom bi nga xamee ne rakkam Fatimatu tuub na dugg ci diine mu dajeeg benn waay waaye tuub du fekk waaña tuub mën a mu dégg koo xamante woon ne mu ne ko yow yow day waroon war a dajeeg yow ma la doon seet pour rey la ndax dégg naa da ngaa dem jàng topp diine Muhammad bon yaa yees commencé mu ne ko mu ne ko bu tuub gi ma tuub daf laa naqari ku la gën a jege Sakal tuub na mu ne ko kan mu ne ko Faatumatu mu ne ko Faatumatu bintu Xattaab tuub na mu ne ko tuub na rek si naa si naa Bakrin bàyyi ko fa ma ngay waaxu dem kër Faatumatu ba mu ngay fekk leen ña ngay jàng alquran ci Xabaab ibnul Arati kenn la woon ci saxaaba yi jàngoon na alquran jàngoon na alquran bi ñëwee rek Xabaab daal di taw dugg ci ronal gi ñoom ñëpp ñii kër kër yi ndox si naa ma dugg fekk Faatumatu mu ngi taxaw jàpp ko poye ko ne ko tuum ngeen commencé di ko xas di lu leen loolu la def gorom bi Faatimatu ne ko ñoom tuum nañ topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diine yi nga xam ne mooy diine yàlla mu neex la ak mu naqadi la mu ne ko mu am kàddu a mu ne ko loolu alquran mu ne ko mu ne ko mukk da ngaa am sobe mu soo sangu dañ ma jox téere bi mu ne ko waaw mu te di koy jàngal dañuy sangoo janaba Omar dem mu jox der ba jëri ak der gëléem lañ daan bind temps yi seen ay yi nga xam ne ñooy wàcc mu ñëw fekk surtout Taaha lañ doon jàng Taaha maa anzalnaa alayka al-Qur'aana litashqaa illaa tazkiratan liman yaxshaa tanziilan mimman xalaqa al-arda was-samaawaati al-ulaa ar-rahmaanu alal arshi stawaa mu ne kéemtaan lii moo lii moo neex lii kàddu mooy kàddu dëgg ñoo bon wala ma ana fu Mouhamed nekk ñu ne ko moom ca Daaru Alxam fekk Faatumata nee na ko du ma la ko wan mukk ngay dem di ko wax lu naqadi wala nga koy def lu ko naqadi ci sama sabab du ma la wax fu mu nekk mu ne ko wax ma ko man du ma ko wax lu ko naqadi te du ma ko def damaa bëgg a dugg ci diine Faatumata daal di bëgg nag wax ko ne ko moom ca Daaru Alxam ibnu Alxam Omar nag ma lay waaxu dem fekk naa am sa moom ca démb ja moo wala ca bët démb ja moom ci diine ndax moom dafa demoon a rëbb ji ba mu ñëwee rek fekk yontu sallallahu alayhi wa sallam doon na julli ca Kaaba ga rek Abu Jahlin ñëw ak noonu yàlla bi Ubay ibnu Xalaf ñoom ñooñu kàccoor yooyu ñëw nañ fekk yontu sallallahu alayhi wa sallam ma ngay sujjoot Abu Jahlin daal dina leen seet kan mooy jël ci yéen sa birit yi ak ak àndaale yi nga xam ne xasaw ñu sotti ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñemee def loolu kenn ci ñoom jub daal di dem sotti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est bridien ak àndaale yu nabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ko ah moom kay ngeen ngi juddu woon fii barki démb yu juróom fii barki démb seen àndaale yi na bi yu xasaw yi ak sébrit yi ko ci kawam boo ko gisee ngeen doo ko xàmmee xam sa ta mer daa di lu tax ngeen def ko mu nekk fii rek di dofloo suñu xel yi di saaga suñu bàyyi naan ay dof lañ suñu bàyyi ay dof lañ dañuy jaamu dëgg seen xërëm yi ngeen jaamu duñ dara mu ne ko ah dégg naa lu bees ci yow de xanaa ngaa tuub te yëguñ ko mu ne ko tuubaguma waaye maa ngi nii di tuub ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi dem ci Muhammad dëggal ko dëggal sama tuub keroog loolu la xam sa tax tamit tuub moom fekk Omar moom moo tuub ca ëllëg sa wala ca gannaaw ëllëg sa Omar ñëw ñëpp daw ragal ji rek dëgg loo ku nekk ngi ut foo laqatu ji fekk ci diggante sàkket yi néeg bi rek liñ ko gis kër am bu ko defee nag Hamzatu ne bu kenn daw bàyyi leen bu ñëwee jaasi jëm te moom laay xeexal moom ba rey ko wala mu tuub dugg ci islam rek mu tuub ñaari rek moom mun a am bu kenn ragal bu kenn daw te fekk Omar mu Xataab dafa xiisoon ci ñoom ñu ragal ko ndax te borom doole la woon ñàkk caaxaan la woon ko amoon kàttan bu ko defee nag Hamzatu ne bàyyi leen ma ko rek yontu sallallahu alayhi wa sallam daal dina ba mu ñëw rek yorantu te dafa ko rek jàpp mbubbam bañ a ko bom ëppali ay bëtam ba tànkam yi di yooree mu bécc ko ci suuf ne ko dalal fa sawlaa la wàccoon ci aat ak sa ci mbugal wàcc ci yow mu daal ne bu lox ne kar kar kar kar daal di jóg ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan ko defee ko dégg ba sëlmal wala ñu def ci sujjóot bu mujj def ne allahumma a'izz al-islam bi ahadil umarayni yow sama borom yàlla na nga tere leen islam doole leen islam ci ñaari omar yi te mooy Omar ibn Hisham te mooy Abu Jahl ak ak Omar ibn Khattab moo tax xabaab ibnul arati wax Umar bu Xattaab ne ko yow yaay ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis naa ko tey ca suba mu si jóot ne allahumma a'izz al-islam bi ahli umar yi yow yàlla yàlla nga dimbalee islam ci ñaari umar yi boo ko defee nag Umar bëgg kontaan ma ngay dox ci bëgg Màkka yi nag di manifesté wu di may ne tuub na dugg ci islam dugg na ci islam ñëpp di daw kenn ñëwee woo ko mu tiit nag ne waaw man gis naa ne képp ku tuub dugg ci islam dañ lay mbugal toj sa bopp toj sa bakkan xotti sa yére coono bu ne ñu toj la ko man ma dugg ci islam dara xew xanaa kay man yàlla dafa nangul sama toog gi nan ko yow kay da nga am nijaay yoo ne kenn ñëwewu ko te moo fi ëpp alal te ñun suñ bor yi bu ñu amee ay problème moom moo ñuy lebal te duñu fayeeku ay bor fekk amul kay jarbaatam mënuñ ko dara sa nijaay moo moo la aar rek mu ñëw ci nijaayam tas ko ma yónneewutul ci moom mënu ma tere tere lebal kenn mënu ma tere maslaa kenn daal dugg ne ñoom tëj buntam Quraysh nag daal di soxla Omar Omar ne may dóor ñuy dóor ñuy toj sama bopp may toj seeni bopp ñuy xotti sama yére mu ma kontaan nag moom ngay waaxu nag dem ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kay lii laa xam ma dugg ci lislaam mel ni sama tuub ma xotti nañ gën a feeñee waaye bàyyi mu ne Omar tamit ci lislaam la feeñee ci lislaam la kawee ci lislaam la yëkkati ko moom rek moo gàgganti foo de ñun ñëpp dañ naa wax naan Omar moo yëkkati lislaam mu ne déedéet lislaam a yëkkati Omar radiyallahu anhu bi ko defee nag ngaa ñu tuub di ci lislaam ñu leen di mbugal di leen def façon xeeti mbugal bu nekk daj nañ Bilaal Ammaar ak yaasin ci boppam ak suma yetu ñii lu nekk daj nañ ko bilaal moom dañ koo jàpp su muy ay yéreem di ko watat ci beñ boo xam ne ma nga tàng jër gannaaw boo xam ne dóor nañ ko ba ay yaramam dagg def ay dagg dagg ay góom ñu koy watat ci beñ boo xam ne dafa tàng mu ko muy nag góom ñu ñëw ko ab doj boo xam ne nii dëgg suñu yoon yi rek Moussa nga seen yàlla yi takk yàlla yi Mouhamed yi ñuy gën a dóor Yaasir moom dañ koo jàpp moom it ci kanam ay njabootam dañ ko génnee suñu ay yéreem takk tànkam tànk ndeyjooram ci ab gëneem takk tànk càmmoyam ci ab gëneem ndàkk bi mu jaar noonu lañ ko xare noonu lañ ko xaree rek de tey de loolu dañ def su Abu Jaalin dafa ñëw yore ab xeet fekk comme ni taxaw mu ne ko xaw ma kan mooy mucc ci dine Muhammad waaye du jigéen ñi ndax taaram bi yontu ko taaru la woon mu ne waaye yow moom da nga ko uutee ñu tëral ko mu dëbb ab xeet ci péeyam ba mu fële ca la ñu ñëwee àllaaxira rek saxaaba yi nag keroog tiit nañ jaaxle nañ ñoom ñëpp ñëw ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg dañoo war a ut fu ñu làqu ji yonent bi salaa salaam ne leen nit ñu njëkk ña mbugal mu nekk dañ leen ko ci diine waaye mosuñoo yokkat mosuñoo daw mosuñoo teelu gannaaw leen bu seet yàlla leen jaral seen bakkan yi rek tey de muñ leen lii dara mos a jeex ñu ne waaw yonent bi ne leen jàngal leen ne leen alif laam a xasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuuna ndax nit ñi danañ ndax da ngeen jortu da ngeen wax ne gëm ngeen yàlla dugg ngeen ci diina ji te duñ leen duñ leen fitna duñ leen buggal loolu du fi amee tey de ndax yàlla képp koo xam ne dugg ci diine dana seet ba xam li nga def ndax àgg na ci sa xolam na la wala xanaa wala xanaa ba xamul yawmal kaadibiina mu ne ko danañ nattu ñi nga xam ne ñoo gëm ba xam ñi nga xam ne ñooy dëggaakoon yeeg ñooy ne ñëpp dañuy oote lu du dëgg ko defee nag yonent ne leen xëy du njëkk yi daan nañ jël nit ko moom dëgër di ko fees fekk mu ngi dund ngir mu bàyyi diineem te du ko bàyyi ba ni mu ñëwee àllaaxira daan nañ jël nit taaj ko yeew ko mooy si Ahmed teg ci baatam di ko xotti xaar ko ñaar pour mu bàyyi diineem ba mu ñibbi àllaaxira loolu yëpp jur nit ñi ñu ci diine yi daan nañ ko dañ ngir diine muñ leen li yëpp dana jeex waaye nag digal naa leen ngeen hijra dem Habacha buuram fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ ci moom ñu daal di dem ñoom ñëpp Habacha biñ demee si naaw sama bokkoon na ca ànd ak ruqiyatu ñu ne juróom-ñaar fukk lañ ak ñaar biñ demee nag najaasi yu nëbbu leen làq leen waaye Omar ibn Aas ñëw fa ànd ak kenn ci waa Quraysh yi ñu ne leen ñu indi ay cadeau indi ay hadaya ne wax najaasi yu ne ko am na ay gaañoo xam ne. màkk lañ dawee ñëw fii làkku si ci yow te naa la wax noonu ñooñu ay danger la ñoo xam ne bu leen bàyyi ci sa suuf dàmb leen ñoom lañ jël si suñuy kilifa ñooñu jox addiya yi pour nga indi la jox nga jox ñu yóbbu leen mu ne ko ñu ngi li seen mbir mu ne ko ñoom daal fi leen nekk di doxloo suñu bàyyi di leen xas di leen di saaga suñu yàlla yi te toppul suñu diine te yow mii sax toppul sa diine jeneen diine la ñuy oote dàq rek tey de Najaasi yu daal leen oo Jaafar ibn Abi Taalib moo leen jiite keroog ba ñëwee mu leen mu laaj ay laaj Jaafar daal di wax ne mu ne ko yéen ban diine ji nga xam ne moom ñe yéen sama suuf sax leen njëkk a wax ñu ne ko ñun day suñu yonent moo ñu ebal ne nañ ñëw fii ci yow. nañu nañ ñëw ci yow sa suuf si ku fi dugg dana mucc ndax yow doo tooñ te duñ tooñ ci yow de yonent si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci yow mu ne waaw léegi yéen lu seen diine yi ñëw ci te yéen topp leen suñu sama diine topp leen benn diine ñu ne ko ñun diine ji ñu mu ne leen seen yonent boobu lu leen di wax comme ni leen digal gëne ko kii Mouhamed dañ koy wax xam nañ ci moom askan xam nañ ko muy borom jikko yu rafet xam nañ ko koo xam ne mosuloo natt ci moom ci benn fenn mu def koo def mu def lu wóoroo ak a oote rek tey de ñoo bokk bokk nañoo askan bu fekkoon ne def na lu bokk ak li muy oote duñ ko topp ñun dañ xeet lañ woon woo di naan sangara lekk medd di njaaloo di dagg mbokk kuñ ku am doole loolu ci lañ nekkoon xeet loolu ci lañ nekkoon